محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إخواني المجتمع الإنساني في مسيرته كالركاب السفينة وهذه السفينة هي آدابه وقوانينه وفداعله فهو بخير ما بقيت سليمة وحافظ عليها على كل فرد في المجتمع أن يحافظ على سلامة السفينة وخاصة أهل الأقل والرعي والبصر وأن يضرب بيدي من حديد على كل من تسول له نفسه خرق السفينة بالخروج على على الآداب والقوانين mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni mu ko baaxoo defee ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk muy soññ xeet wi pour jubante leen orienté leen teg leen ci yoonu yàlla tabaraka wa taala ci hadis boo xam ne mi ngi soññ xeet wi ci al amru bil maaruf wan nahyi anil munkar di digal nit ñi lu baax di leen tere lu bon hadis boo xam ne Nu'man ibnu Basir moo ñu ko nettali mu ne yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam jël na xeet wi di leen misaal comme gaal comme bateau bu tegu ci kaw géej bateau boo xam ne ñaari étage la dafa am ñu dëkke suuf am ñu dëkke kaw yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na dund wi xeet wi dund ci suuf si ci keppaaru asamaan bi yonent bi nee na bu ñu koy misaal dañ koy gis mu mel ne gaal gaal goo gis yonent bi nee na dafa am ay mbir yoo xam ne buñ ko defee gaal gi daw waaye gaal gi dal ñu xuus ndànk ndox mi ba egg tefes mu ne naka noonu dund doomu aadama yi ñu dund ci kaw suuf dafa am ay loi comme gaal gi ni mu amee ay loi ci biir géej gi gaal gi bis bu xëttee loi yi musiba day am ci gaal gi moo tax yenn saa yi nga dégg ñu ne gaal suux na lu ko waral ñu ne dafa ëppoon lu ko waral ñu ne benn moteur moo paan lu ko waral ñu ne nàngam lu ko waral ñu ne nàngam loolu tax yonent bi mu ne dund gii ñuy dund it dafa am loi lu njëkk mooy ñu xam ne dund gi dafa am loi waaye dafa am aadaab ay teggin yu mu war a doxee ay loi yuñ ko war a attee tënk ko ci wa fadail ak ay ngëneel nee na gaal gi dina nekk ci jàmm dëkk bi dina nekk ci jàmm feek ñu ngi respecté loi yooyu feek ñu ngi respecté orientation yooyu feek ñu ngi respecté yoon yooyu nga xam ne moom la waa dëkk bi ak waa gaal gi tëral ci seen gaal waa dëkk bi tëral ko ci seen dëkk waaye bu fekkente ne gaal gi dañ ko teg ci ndox mi rek ñu ne ku nekk rek su sa tànk tegu rek baax na sëmbax loo leen mu ne day mel ne sunu dund bi ñuy dund tey nga xam ne loi amatul suñuy wax loi nag li ci ëpp tey li wér mooy loi yi yàlla tëral ci sunu dundin ne nanu dundee noonu tey kuy xool da ngay gis lépp lañ jalgati lépp lañ xët bàyyiwuñu dara yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ay fanam yu mujj bokk na ci lim doon wax ak xeet wi di leen wax li ngeen di njëkk a xët mooy atte mu ne ñaareel ba mooy julli mu ne noonu ngeen di def di fecci pas-pasu limsa islaam yi nuqdatu oratul islaam di ngeen fecci pas-pasu lislaam yi benn par benn benn par benn di ngeen dem ba yépp jeex tàkk kenn dootu ci respecté benn te foofu la xeet wi toll kon dina yella ala kulli fard ci bépp individu ci bépp borom kër ci biir société bi an yuhaafisa ala salaamati safina yéem a respecté mbokk yi gaal gi lu ko muccal dëkk bi lu ko muccal kenn ku nekk nga xalaat lan mooy muccal dëkk bi nan la ñuy def ba delluwaat ci li yàlla ak yonent bëgg nan la ñuy def ba tënkuwaat ci keppaaru yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu kenn ku nekk ci ñun responsabilité la bu yàlla gàll ci saw loos mais kenn ku nekk ci ñun bu ne man de sama yoon nekku ci man de sama yoon nekku ci yonent bi ne mu ngi mel ne gaa yooyu ci biir gaal gi ñu ci kaw ñu ci suuf am ku jekki-jekki foofu ci biir suuf ci biir gaal gi mu jël sémmiñam di bënn gaal gi nee na waas kaw xool waa ji gis ko muy bënn ñu ne ko eh mu ne sama place laay bënn fii maa jënd billet bi maa ko moom moom laay bënn mbokk yi est-ce que gaa yi ci kaw ak ñi ci biir gaal gi dañuy bàyyi waa ji mu bënn gaal gi loolu la yonent bi wax ci société bi mu ne bu ñuy di jaamu yàlla bu ngeen yaakaaree ne dañuy nekk fi rek di julli di jàng alquran ñii mooy yàlla nekk ci mbedd mi di mooy ñun ñu ne ñu ngi ci jàmm ñee ñoo nekk ci shirk bis bu leen yàlla di mbugal yàlla boole ñu ci fattaqu fitna laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa yàlla nee na moytu leen musiba de am na dëkk boo xam ne keroog ba yàlla joxee jibril ne leen mbugal jibril dafa ne cëpp delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala mu yegg si moom jibril jibril mu ne ko yàlla moo ko gën a xam jibril lu tax alagoo dëkk bi mu ne dafa am nit ku baax ku fa nekk yàlla ne jibril demal soo demee njëkkeel waa ji demal nga mbugal dëkk bi njëkkeel waa ji jibril ne ko yàlla lu tax mu ne dafa gis ñu may tooñ kanamam soppeekuwul ñun ñi ci biir jumaa jeeg ñi ci biti kan moo fi gisul ñuy tooñ yàlla kan moo fi déggul ñuy tooñ yàlla kan moo fi gisul ñuy jalgati sharia kan moo fi gisul ñuy xeex islaam kan ñun ñi ci biir ak ñi ci biti laa wax kan moo fi gisul ñuy tooñ yàlla ku ko fi gisul waxal ku ko fi déggul waxal ku ci tegul sa bët ñun ñépp gis nañu ko waaye nag saakitu anil xaq seytaanun awras ku gis dëgg noppi waxoo ko yow seytaane bu muuma nga yonent yàlla muhammad moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yonent bi nee na ala kulli fard fi lmujtama an yuhaafiza ala salaamati lsafina wa xaasa ahlu laqli walraayi walbasar suñ nee nañ aar réew mi nañu aar xeet wi kan moo ci njëkk yonent bi nee na borom xel yi borom xam-xam yi borom gis-gis yi borom xalaat yi kilifa diine yi kilifa adduna yi ñoo ci njëkk mais xam ngeen ne tey bokk na ci yàlla nattoo waa réew mi mooy amatuñu kilifa diine lan lañ am ay kilifa tarixa diine bi kenn du ci wax amma tarixa bi dañ ciy wax mais diine bi alquran yàlla sunna islam kooku amul kilifa El Hadji Umar yal na ko yàlla yërëm waxoon na ne ku dee ku ne am nga ku la jooy mu ne ba mu des islam ku dee ku ne am nga ku la jooy kër guy tàkk gu ne am na kilifa gu ñuy woo mooy kilifa kër gi amma islam tey amul kilifa ku nekk dafa lu la neex moo tax ngeen gis l'islam bi mbooleem foo tourné dégg ay woote foo tourné dégg ay jëf foo tourné dégg ay wax foo tourné gis ay dugg ak ay génn mais doo dégg kenn wax parce que l'islam la loolu bokk na ci liñ yàlla nattoo ixwaan war na borom xel yi ñu taxawu diina ji borom gis-gis yi mu ne waruñu yem rek ci wax waaye wa an yudriba bi yadi min hadid kullu man tusawilu lahu nafsa xarqu safina gis nga waa jooju ñu gis ci biir gaal gi mu yor sémmiñam di bënn gaa yi ne ko hee hee mu bañ gaa yi wàcc bu jaree waa ji sax ñu jël ko tëmmal ko ci biir géej gi ngir ñoom ñu mucc keroog gaa yi dinañ ko def wala ñu jël ko tëj ko ci benn néeg pour ñoom ñu mucc keroog dinañ ko def nee na noonu ñu def waa jooju pour gaal gi mucc noonu lañ war a def band yi nga xam ne tey ñu ngi yàq diine ji foo tourné rek ci biir Sénégal dégg ay wootekat di joxe ay wird di drogué xale yu góor yi di drogué xale yu jigéen yi ba kenn ku ci nekk bu ko yaayam ne hee mu ne ko xaw ma la man kii mooma la gënal chaque jour ngeen dégg sax sëy bu ñu maye ndeyam ak baayam ne ñun yëguñu ko tinnuñu ko dañ koy dindi nga dégg xale bi fépp daan ne man ànd naa ci waa ji lu ma defal bëgg naa chaque jour ci biir société bi ngeen teg ci bët te ñooñu ay dajjaal lañ fekk waxuñoo ak ñoom wallahi bu ñu toogee nii rek di dem mbir yi day dem ba dugg suñu biir kër yi loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne aar société waru gar la ci bépp individu mu ne waruñu yem ci loolu waaye dañoo war a gàddu yat di dóor ci loxo ñi nga xam ne ay yàqkatu société bi lañ képp ku yàq société bi dañ la war a freiner dañoo war a wax ak yow mais tey ana kuy wax ak nit ñi yàlla dañu natt loolu amatul ixwaan ليس لأحد الحرية في قرق الآداب والقوانين وإغراق السفينة kenn ci ñun amul droit gis nga waa jooju naan man non fii sama place la am naa ci droit ah maa dagg billet bi fii maa fi moom lu ma neex laa fi def gis nga waa jooju islam bi kenn amul ci droit xam nga fii bokk na ci li ñu indil problème mooy da ngay wax ñu ne non da ngaa war a maandu gëmoo mbir mi da ngaa war a maandu déedéet islam amul maandu man raa min minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadihi ku gis lu noonu yonte yàlla muhammad alayhi salatu salaam kon bi mu ñëwee ci kaaba gi gis ñetti téeméeri yàlla fukk ak ñett est ce que dafa ne kon damay maandu maandu te mooy mu noppi mu ne lii du dëgg loolu du maandu te maandu te gi mu ne mooy lii du dëgg yàlla mooy yàlla keroog ba mu nee nañ jaamu yàlla lu gaa yi wax ajaalta al aliha ilahan wahid inna hadha la shay'un ujab ma sami'na bi hadha fi abaina al awwalin ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett nga bu ko def benn loolu dafa yéeme ñun li ngay wax musuñu koo dégg mais il faut mu wax ñu dégg tey nag bokk na ci dañuy freiné nit ñi non gis nga mbir mi ku ko gëmul sa yoon nekku ci loolu amul ci lislaam lislaam loolu amul ci ku bëgg def sa mbir kenn du ci wax dangay dem ba ginnaaw asamaan nga def ko foofu mais fii ci kaw suuf si islaam bi lépp loo ci def du dëgg alxuraan moo nañu ñu weddi ko su dul loolu loolu yonent yi du ñu xeex su doon loolu du ñu rey sahaaba yi partout la ñu tasaaroo dans le monde di tas l'islam fu ñu yegg si fekk ñuy bokkaale fu ñu yegg si fekk ñuy def bidaa ak lu kenn xamul ñu daal di koy dindi teg fa diine bu leer loolu mooy wax bi kon l'islam amul liberté amu fi l'islam amul xurriya loolu ñu naan non man sama ma sama liberté bopp la su ma neexee ma def yow gëmoo sa yoon nekk ci loolu amul ci l'islam ixwaan yi foog ñu xam loolu il faut ñu xam ne du ñu xool ay nit noonu ñuy xeexee tey ñuy jaay drogue nga xam ne kuñ jàpp peine bu diis lañ lay dóor noonu ñuy xeexee agresseurs yi nga xam ne kuñ jàpp dëkk bi dañ lay rey mais ñaari agression moo am mais ñun agression bu ndaw bi la ñuy aar bàyyi bu mag bi bu ndaw bi mooy ban mooy kii sàcc kalfe yi kii sàcc portable yi amma kii sàcc pas-pas yeeg axiira yi kooku dañ koy bàyyi kenn du ko wax dara te kooku moo gën a dangereux parce que tey bu ñu fexee ba nit ñi gëmatuñu yàlla nit ñi gëm tey ni ñu gëmee alal nga gis nit ñi futtee ku def yaramu neen di dóorante ay kurpeñ ngir alal ñu bàyyi nit ñëpp nekk ay rappeur ñëpp nekk ay musicien ñëpp nekk ay mbër ñëpp nekk ay bokkaalekat fu xeet wi jëm fan la xeet wi jëm ñun ñëpp bu ñu toogee yàlla tabaraka wa taala dina wàcce ci sunu kaw mbugal moo xam ne kenn du ko delloo te wallahi mbugal yi tàmbali na dañoo amul xel rek amuñu xalaat waaye chaque jour courant bi di coupé rek mbugal la lii dong mbugal la bu ngeen yaakaar ne mbugal mooy asamaan daal di wàcc rek nit ñi dee wala géej gi daal di daw wala suuf si wëlbateeku donte ne loolu mu ngi am waaye bokk na ci mbugal mooy lii réew mi nekkee crise boo xam ne kenn xamul fu ñu jëm ak moom ci mbugal yi la bokk borom bi tabaraka wa taala nee na inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim nit ñi duma leen soppi lu dul ñooy soppi suñu bopp kon nañ jàpp ci loxo xeet wi kenn ku nekk jàppal ci loxo ñi nga yilif waxal ak ñoom dëgg won leen dëgg gi na la jaral lu nekk aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu alghafur rahim alhamdulillah wassalatu wassalaam ala man ursila rahmatan lilalamin bashiran wa naziran wa daa'iyan ila allahi biiznihi wassirajan munira ixwani xatru sukuti ala almunkar azim danger bi nekk ci gis lu bon nga noppi danger bu rëy moo ci nekk ñun xeet wi mooy xeetu lislaam bi ñu yàlla tabaraka wa taala doon tagg ban garaat la ñu yàlla takkal bi ñu yàlla ne yéenay ngën gi xeet ñi ma bind yépp yéen xeetu lislaam yéen a ci gën ban garaat la ci yàlla teg kuntum xayra umma uxrijat linnaas lu tax mu ne taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah yéen xeetu muhammad yéen yéen ay ngën gi xeet dama leen a tànn dama leen a segg tànn leen ba ngeen set wicc ma def leen ngeen ànd ak yonent yàlla muhammad xam ngeen lu ko waral yàlla ne da ngeen di digle lu baax di tere lu bon gëm yàlla da ngeen di digle lu baax fan lañ toll ci loolu fan lañ toll ci di digle lu baax di tere lu bon tey kenn ñemewul digle lu baax parce que da ngay bañ ku la dëkkal kër goo dëkkul bu fekkee loolu nga ci xool diina bi du dem foog ñun ñëpp ñu nekk ay diglekat lu baax terekat lu bon mbokk yi noppi ci lu bon danger bu rëy la labud mu nekk alwuquuf mawqif mutafarrij min alxaarijain nga gis koo xam ne day taxaw ndeysaan di seetaan ñuy jalgati diine mu taxaw di seetaan yenn saa yi sax mu ree kaay leen ngeen xool yenn saa yi sax nga gis ku tàcc yuuxu kaay leen ngeen xool parce que l'islam la ñuy jalgati ñëpp noppi loolu mooy am yenn saa yi ci bisu talaata ci suñu théâtre yi théâtre yi ñuy xas l'islam nga gis borom kër gi toog ci saalam ak soxnaam doom yi ñuy ree fekk l'islam la ñuy xas ñaata yoon ngeen ko gis ñun ñëpp teg nañ ci bët fii ñuy jalgati l'islam bëccëg ci kanamu écran télévision Sénégal ñëpp di ree di yàq alquran nga gis ay théâtre kat di yàq alquran ñun ñëpp lan la ñuy jublu mooy dañuy reetaan au lieu ñu jóg xam ne waxu yàlla la tey président de la république moo gën a rëy ci nation bi su benn waaye jëloon waxam jalgati ko waa jooju bu xëyee suba du liggéey maa ngi fàttaliku benn bis benn journaliste bu tudd Malick Gueye doon na def communication journal télévisé muy joxe discours président mu wax daal di reetaan daan ne ngeen baal ma ñu jëlaat mbir mi au sérieux waa jooju keroog lañ ko génne télévision Sénégal ñun nag dañuy toog gis ñuy jalgati waxu yàlla ñuy reetaan moo tax war nañu xool suñu bopp est-ce que ñun am nañ ngëm yàlla kenn ku nekk ci ñun war ngaa xool sa bopp saa yoo gisee ñuy tooñ yàlla sa kanam changé wul war nga xool ndax yow am nga tarfatul ay ni ci ngëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu xotti woon sharia yonent bi kanam ngi day xiin ba mel ne asamaan bu xonk ñun ko même bu dul waxtu julli danaan bilaal wooteel bilaal woote mu taxaw ci kanamu jaam yi daan ne addinaa ngi bëgg a tukki lu tax ñuy def nangam ñun fan lañ toll ci loolu mbokk yi su fekkee ne ñun gëm nañ yàlla am nañ tuuti pas-pas ci diine fan lañ toll ci gis ñuy mooy yàlla guddeeg bëccëg ñuy ree fan lañ ci fan lañ ci toll ixwaan yaqulu alhabib mustafa sallallahu alayhi wa sallam inna annas ida raaw almunkar falam yugayiruuhu awsaka an yuammahum bi azabillah an yuammahum allahu bi azabin yonent bi nee na nit ñi inna annas la wax nit ñi iza raawul munkar bu ñu gisee lu bon mu leer la ne lii lu bon la lu yàlla bëggul la nee na falam yu xayiruhu jóguñu changé ko dindi wuñ ko sikk nekku ci ne léegi yàlla teg seen kaw mbugal sikk nekku ci banu israil yàlla xas na leen ci quran lu tax yàlla mu ne daawuñu digle lu baax daawuñu tere lu bon ba pare sax dañ daan digal nit ñi def leen lu bon ñun foofu lañ tollu tey ñun da ngay gis ci nit ñi fii kuy encouragé lu bon wala nga tere ko bal da ngay encouragé caaxaan yi ñu gis ci sunu mbedd yi fan la fan la jógee lu ci biir kër yi ñaata kilifa tey ñoo fi toog bu jumaa jotee ñu dem julli ji fekk seen kër yi xale jigéen ñi lu bon rek la ñuy sol ñaata bu julli jotee ñu dem fajar tismis takusaan tisbaar conférence bu woote ñu dem jàng yu ñu woote ñu dem gàmmuy màggal tout fekk seen kër boo demee xale yi jigéen yépp lu bon la ñuy sol góor ñi dañuy cris karas seen tubéy jigéen ñi di sol lu bon xale jigéen yépp seen ween yi barki démb benn xale bu jigéen mu ne ma xam nga luy paccal ma ne ko luy paccal mu ne ma da ngay pompé sa ween yi mu génn xale yu góor yi di xool loolu ñaata yoon ngeen koy gis fii ci sunu mbedd kër yi loolu jullit dina bàyyi këram jigéen di def loolu bàyyi say ween ci biti ana sunu ngëm yàlla ñu xool sunu bopp yàlla kenn mënu ko nax yàlla dafa ne woon yaa ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha annaasu walhijaara ee yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp safara fegal seen njaboot keroog bi aaya bi wàccee dafa am sahaaba bu toog juróom benn fan di jooy ci aaya bi looy jooy mu wañ ko wax ñu dem boole ko yonent bi yonent bi woo ko mu ñëw ne ko yow looy jooy mu ne ko ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli man mënumaa dugg àjjana yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw man du ma dugg xoolal rek ñun ñaata yoon lañ dégg aaya boobu qu anfusakum wa ahlikum naaran musal leen seen bopp musal seen njaboot xool soxna sunu soxna yi ñaata ci ñun fii seen soxna bopp neen lay def ñaata ñun fii seen soxna mënul sangu set ñaata ñun fii seen soxna du julli ñaata waxuma la dogar yi waaye doom yi ñaata te yàlla mu ne la musalal sa bopp safara musal sa njaboot kanti ñun moo bëgg dugg aljana njabootam dem safara loolu yow sa dund ban njëriñ la am mbokk yi il faut ñu xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yonent la bu yàlla yónni ci ñun mu wax ak ay ñun hadis yu dëgër mu leeral sunu dund bu ñu bëggee dund dund gu baax yonent bi wax ci hadisu Huzayfa moom dafa giñ keroog moom yonent bi mu ne wallazi nafsi bi yadihi la taamurunna bilmaaruf wala tanhawunna anil munkar aw la yasukanna allahu an yabasa alaykum adaban min indi summa la tad'unahu fala yustajabu lakum hadisu Huzayfa yonent bi nee na giñ naa ci màggaayu yàlla giñ naa ci sama bakkan ki mu nekk ci loxoom man yonent bi di ngeen digle lu baax tere lu bon wala yàlla dina wàcce seen kaw mbugal ngeen di ñaan guddeeg bëccëg yàlla du ko nangu fi mu nekk ni ñëpp a ngi ñaan kilifa yi fu ñu dem dañ naan ñaanal leen réew mi kilifa yëpp a ngi ñaan yàlla nanguwu ko bu ko yàlla nangu woon léegi courant bi tàkk kon léegi dund gi doy kon léegi sutura wàcc ci réew mi mais ñaan yëpp yàlla nanguwu ci dara parce que lu tax lu bon moo bëri ci réew mi nit ñi bu ñuy dund ci lu bon dañuy ñaan yàlla ba sonn dara xam ngeen dëkk bi ñuy wax quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñëpp di ñaan dëkk bi mel nii xam war nañu xam ne ñaani yàlla nangu ko yal nañu yàlla won dëgg wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla won neen wërsëgal ñu topp ñu ñu sori ko allahumma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tuazibna ba'da al mawt allahumma la taj'alna jubana fa nad'afu an qawlati al haqq wa natakhazal an muqawamati al batil ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأقم الصلاة